la askan bi yaakaar ndax justice bi ñoom tëjul nañu nee nañ def nañ seeni réforme ñu ngi xaar exécutif bi gis ngeen ne accaparé nañ ko xamuñu kuy président ak ku dul président benn moo ñu desee muy assemblée nationale suñu bàyyee assemblée nationale tëjal nañu buntu Sénégal donc assemblée nationale rek moo war a jouer pleinement son rôle pour que fii ñu jëm mu am lu ñuy wax équilibre de pouvoirs suñu citoyens yi nga xamante ne ne ñoom de ñu ngi si ay jafe-jafe yu méttee méttee métti te gis ngeen ko dund gi seer na jafe-jafe yi bëri na ku feebar doo faju nit ñi ku di dugal seen doom yi école sax problème la ñooñu nag mënuñu compter lu dul ay dirigeants yi nga xamante ne dañuy dem représenter leen assemblée nationale mu doon ay député yu digne mooy aw député yu am valeur mooy doon am député yu am ay vertu te mënuñu ko weesu lu dul ci sàmm sa kàddu nga xamante ne day ñi fi toog gis ngeen leen wane nañu seen preuve moo tax jàpp nañ ne nag majorité assemblée nationale rek moo mën a regle problème mu réew mi opposition am majorité assemblée nationale waaye nag ñoom xam nañ ne fi loolu lañu jëm pour tere loolu am dañoo commencé di indi ay argument ne ñoom de suñ leen joxul majorité am na loo xamante ne duñ ko mën a def bokk na ci loolu mooy ñu ne cour haute cour de justice bi nga xamante ne moo war a juger ñenn ñi comme ministre yi lu suñu amul majorité dañ ko teg ñu ne leen déedéet teg leen boobu boobu baaxul ndax ñun ñii sàmm sa kàddu jàpp nañ ne reddition des comptes dafa war a am jàpp nañ ne képp ku gérer war nañ la saytu jàpp nañ ne haute cour de justice loi bi teg na ko ba pare te su dee teg nga ko benn justice bu ñuy teg la rek waaye dinañ fexe ba lu ñu bëgg def muy règlement de compte du am ci réew mi justice dina am haute cour de justice dinañ ko teg suñu toogee waaye réglement de compte du am ci réew mi te haute cour de justice nag ñu nekkoon ministre ak ñu nekk tey ministre yépp la concerné képp koo xamante ne jël nga alalu askan bi dañ ko war a delloo askan bi beneen bi mooy ñoom de dañoo jàpp ne ne tey suñu doom yi ak suñu frères yi ak suñu sœurs yi nga xamante ne dañ leen a faat si événement yi am te yàggul saa yu ñu toogee ñu ngi wax ci loolu loolu naqar la bu Sénégal yépp bokk ñun ñépp am nañ ci ay mbokk yu ci dem waaye dañ leen di wax lu ñuy wax ñoom nañ ko jëfe ba bu loi d'amnistie boobu di am lan la ñu def pour empêcher loi d'amnistie bi li ñu waroon def yamul rek ci moment vote bi parce que loi Ezzan ba mu amee ku mel ni Khalifa Sall Ababacar Sall nga xamante ne fii la bokk ci coalition bi moom ak ñeneen dañoo dem conseil constitutionnel pour wax leen ne lii loi la boo xam ne dañ ko war a dàq ñoom amoon nañ possibilité dem conseil constitutionnel demuñu conseil constitutionnel moo tax ñun sàmm sa kàddu dañ ne suñu toogee na leer sénégalais yëpp que dinañ dugal proposition de loi pour que loi bu am amnistie crime yooyu loi boobu ñu dind ko ba mu set wecc sàmm sa kàddu tamit taxawaay bu mu war a am pour ñu leeral loolu pour képp koo xamante ne def na si mbir mi yoon teg la loxo sàmm sa kàddu bi sa am taxawaay bu war ñu jàpp nag ne régime bi nag ginnaaw ba ñu dàqee yooyu yépp amatuñu argument nee nañ dañoo indi argument wu blocage maanaam soo leen ñu falul soo leen ñu joxul majorité dañuy bloquer réew mi seet koo xam ne moo jiite seen tête de liste si boppam vidéo baa ngi fii nee na kenn mënul bloquer Sénégal kenn mënul bloquer assemblée nationale moom si boppam moo ne su ñu joxee majorité opposition kenn mënul bloquer assemblée nationale loolu leer na lay boobu nañ ko teg fële waaye wax ko tamit ñàkk xam la ndax majorité su amee ci biir opposition dañuy dem ci li ñuy wax cohabitation cohabitation lu muy tekki mooy